asalaamaaleykum mbokk internet yi dal leen nag eh, jàmm alors tey nag ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ne mooy eh, nouvelle bu ñu jot doon génn ko àdduna bay di Amar doon doom ci ki nga xamante ne moo di Ahmed Amar doonoon fi homme d'affaires boo xamante ne ràññewoon nañ ko ci eh, Sénégal doomam bi nag nga xamante ne jot nañu nouvelle tey bi wane ni démb rek dafa daal di génn àdduna ci ay anam yu doy waar fële ca benn appartement bu nekk ca. Dakar euh, Plateau Ange te buñu ñu euh, fàttalikoo mën nañ ne du ne euh, gulet ci li nga xamantene modi moo Amar gisone nañ fi aussi li nga xamantene moy 2020 2020 autant pour moi ci. 4 avril japp 3 avril gisone nañ fi ben scandale bu maga mag bo xamantene xewon na ci famille bobu mën na ne sax ci fréram bu ñuy waxee Dame Amar ginnaw appartement bi nga xamantene ne luwe nako ak ay xaritam bo mu mujjoon jur jeeya ba benn femme daal di ci euh, ñàkk bakkanam di wuyoo ci turuk euh, Iba waaw li nga li nga wax loolu la parce que bu ñu consulter li nga xamante ne moom moo di euh, archive jëm ci li nga xamante ne moom moo di euh, génn àdduna ki nga xamante ne moom moo di Iba dañuy gis ne euh, ci atum deux mille vingt maanaam guddi trois jàpp le quatre deux mille vingt ki nga xamante ne moom moo di Dame Amar am na benn histoire bi nga xamante ne boolewoon na ko ci yu mel noonu ki nga xamante ne nag moom moo di Iba moo si ñàkkoon bakkanam moom nag biñ ko laajte ci kanam ñi nga xamante ñoom ñoo di enquêteurs yi moom dam dafa xamal xamaloon ne li nga xamante ne moom moo di appartement bu mu jëloon dafa amoon benn xaritam bu yoo ci turu Aliya Baki moom moo jógoon euh, France di koy seet ba mu ñëwee nag ci la kooku moo taxoon mu daal di luwe li nga xamante ne moom moo di appartement bi ñu mel euh, moom nag euh, xamaloon na ne ginnaaw ba muy jëlee appartement bi ñu mel am na yeneen xaritam ku ci mel ni ki nga xamante ne moom moo di Pape Diadia Tall mm-hmm. daal di koy woo waxoon ne bëggoon nañ dem foofu fi nga xamante ne moom moo di ci biir këram nee nag comme que moom ñooñu ay xaritam lañ waaye li nga xamante moom moo jot a moom moo jar a mooy li nga xamante ne moo di période bi ñu ko defee. Mm-hmm. jamono ji nga xamante ne ci lañ ko defee mooy jamono ji nga xamante ne moom moo di jamono yu couvre feu mm-hmm. euh, moom nag ki nga xamante ne moom moo di euh, dam nee na ki nga xamantene mom modi euh, pap papa jaja tal mom moko ko daal di woo xamal ko rek bëggon nañ dem euh, fofé mm-hmm. buñ ko woyé nak ki nga xamantene tam mom modi euh, Iba cham mm-hmm. dal di koy woyé tamit wax ko né mom bëggon nañ dem fi nga xamantene modi kërëm mm-hmm. Iba dal di anda ki nga xamantene mom modi jaja di ñu dem ci kër ki nga xamantene mom modi dam biñu éggé fofu nak ñu doon andak benen policier manam Iba dafa amone benen xaritam policier la muy tuddu ci muy wuyoo ci touru Lamine Diédhiou koku la ñu comme que jamono yu kubu fa lañu woon euh, ki nga xamante ne moom moo di policier bi di Lamine Diédhiou moom moo leen euh, escorté moom moom moo leen moom fait moom moo leen mayoon euh, moom moo leen mayoon possibilité pour ñu mën a génn seen kër yi dem fi nga xamante ne moom moo di si këru dam nee nañu laata ñuy dem fi nga xamante ne moo di këru dam ñu ngeen ci benn hôtel bi ñu jógee foofu la ci lañu woo mm-hmm. ki nga xamante ne moom moo di dam amaar wax ko ne bëggoon nañ dem foofu dam na ne comme que ay xaritam lañu moom mënu leen gantal li ñu mel ba tax na nag moo accordé li nga xamante ne euh, moom moo di ñëw boobu waaye dam nee na laata ñu koy xamal ne euh, moom ki nga xamante ne moo di Iba moo ko woon wax ko vingt une heures dina jaar foofu Iba bu mu doon dem ci yoon bi ci la ko wax ne mu ngi ànd ak xamante ne moom moo di jaajataal ak ki nga xamante ne moom moo seen xarit bi di euh, Lamine ci lañ dem foofu noonu ci biir kër gi fekk ki nga xamante ne moom moo di dam ak xaritam bi nga xamante ne moom moo jóge woon France ci noonu nag ci lañ toog di di ambiance foofu ci biir kër gi ba ay guddi léegi nag li nga xamante ne moom moo yàqoon ambiance bi wala li nga xamante ne moo yàqoon soirée mooy gaañu ki nga xamante ne moom moo di Iba Iba nag bu ñu laajtee ñi nga xamante ne ñoom ñoo fekkee waaw bi ñu laajtee ñi nga xamante ne ñoom ñoo fekkee maanaam xaritam yi ku ci mel nag ki nga xamante ne moom moo di jajatal wala ki nga xamante ne moom moo di Alia Bakir wala ki nga xamante ne moom moo di Lamine Diédhiou nga xamante ne moo di police am na beneen tamit lamin bu fu nekkoon Lamine ñaan la la tudd ba ci Dame Amar bi nga xamante ne moo jëloon appartement te tey mooy frère ci ki nga xamante ne génn na àdduna voilà Euh, laajte itam ki nga xamante ne moom moo di Jibril Jibril euh, Sène euh, Jibril Bassène ñoom ñëpp ñu ngi yoon foofu bu ñu leen laajtee lu ñu mel ñoom dañoo xamal ne rek effectivement ne dañoo jégi-jégi rek gis ki nga xamante ne moom moo di Iba moo daal di sedd guy fi nga xamante ne foofu la nekkoon léegi nag ñi nga xamante ñoom ñoo di enquêteurs yi bu ñu demee foofu ci biir kër gi mhm. nee nañu ñoom gisoon nañ fa li nga xamante ne moo di ay desitu drop Sinaybar waaw ay Sinaybar mm-hmm. mais nag ñoom ñi nga xamante ne laajte woon nañ maanaam ñoom ñu nekkoon foofu ci biir kër gi nee nañu li nga bu taxawee ci kanam baar bi mm-hmm. dañoo weddi li nga xamante ne moom lañ mel wax ne foofu sangara moom naanoon nañ ko. Mm-hmm. mais drogue moom euh, jëfandikuñu ko mais am na kenn ku nga xamante ne peut-être que moom moo wéy jël li ñu mel. Mm-hmm. mooy ki nga xamante moom moo di Aliya Bakir Aliya bu ñu ko laajtee dafa waxoon ne ki nga xamante ne moom moo di euh, Iba. moom moo fo Iba Thiam moom moo fa indi gis ko foofu ci mm-hmm. biir euh, kër gi. keneen itam ki nga xamante ne ko laajtee moom dëggal na leen drogue mu ngi foofu mooy ki nga xamante moom moo di Jibril Bassène moom nee na nga xamante sax moom moo di Iba moom moo ko ñam lool li nga xamante ne moom moo di drogue bi ñu men moom nee na li ba lu nga xamante ne loolu la ko ñamal mooy poudre maanaam sunguf bu weex cocaïne bi nee na bu mu duggee ci li nga xamante ne moom moo di toilette bi fekkoon nag li nga xamante ne moo di mu téye li ñu mel ci loxoom mm-hmm. moom ci lay door gis li nga xamante ne moom moo di drogue ci lay door tamit ñam li nga xamante ne moo di drogue mel mm-hmm. donc mu mel ni bu fekkee ne ñoom ñi nga xamante ne li ci gën a doy waar mooy jigéen la waaw moo ko ñamal ki nga xamante ne mooy waa jooju waaw moom Iba moom ñamal Jibril li nga xamante ne moom nak di drop bu doon nag bu fekkee ne ñoom bu ñu leen njëkk a laajte en tout cas ñenn si ñoom bu leen njëkkoon laajte ci par rapport ak li nga di existence drogue bi dañ kaa weddi mhm. ñi nga di alia ak kii di Jibril Jibril Bassène mhm. ñoom dëggal nañ ne effectivement li nga xamante ne di drogue euh, nekkoon na ci biir euh, kër gi ba ki nga xamante ne di euh, Iba mhm. daal di si ñàkk bakkanam mu doon nag beneen mbir bi nga xamante ne na coow waaye ginnaaw loolu nag am na keneen itam ki nga xamante mu ngi yoon euh, ci ci biir maanaam Iba bu mu ñàkk bakkanam moom fekkee na ko mooy ki nga xamante ne moom moo di euh, Pape mm-hmm. euh, Diadia Tall mm-hmm. Pape Diadia Tall yi tamit ginnaaw buy Iba ñàkkee bakkanam moom dafa demoon toogaan fi nga xamante ne moom moo di ci réew Côte d'Ivoire ci mm-hmm. Abidjan foofu tamit moom foofu la daal di mujj ñàkk li nga xamante ne moom moo di bakkanam le 12 février 2023 bi ñu weesu effectivement moom nag dañ ko daal jamati parce que nee nañu bi ñuy en tout cas police bu muy dem foofu ci biir këram dañoo dañ kaa fekk fekk mu tëdd fekk euh, mu tuur deret bu bëree bëri mm-hmm. donc mu mel ni ne dañu ko daal di agressé wala dañ ko daal di jamati mm-hmm. ba di ñàkk li nga xamante ne moom moo di bakkanam mm-hmm. waaye laata police dafay dem ki nga ne moom moo di euh, taxi maanaam euh, ki moom moo di taxi maanaam moom moo demoon ginnaaw ba mu toggee déggu ko parce que den nee na chaque fois Pape daf koy faral di woo pour mu demal ànd ak moom soit mu demal def ko ay courses léegi ba mu toggee nag déggu ko ci la dem foofu ci biir kër gi jaaree ko ci nga xamante ne moom moo di dëkkandóoram mu daal di koy xamal ne diw dégguma ko tey ci la ànd ak ki nga xamante ne moo dëkkandoo dem foofu mm-hmm. bu ñu demee ba foofu ci lañ woo li nga xamante ne di euh, police moom police daal di ñëw bi ñu ubbee nag ci lañ ko fekk mu daal di tëdd mm-hmm. gis deret bu bëri bi nga xamante ne euh, daal di koy euh, tuur mm-hmm. waaye laata bés boobu noonu moom ki nga xamante ne moom moo di jaajataal jotoon na organiser li nga xamante ne moom di soirée comme bi nga xamante ne moom moo ci këru dam dam dam dam dam amar soirée bi ñu mel itam ki nga xamante ne moom moo di jaajataal organisé on nako fofu ci Côte d'Ivoire ci biir kërëm nee nañ mu and ci ak ñu nga xamante mom modi di borom ñaari euh, touri mom mhm. sax ñu juñu ko ne bok na ci ñi nga mom modi borom ñaari touri ba si ëlëk sa lañ ko dal di fekk ci biir kër gi mu dal di faatu mu mel nak li nga xamante mom modi soirée bi ñu mel ginaaw soirée bi nak mom moko dal di jural li nga xamante mom modi agression bi nga xamante mom mo jël bakkan alors euh, ginaaw soirée bi nga Dame Amar organisé won nako ci ben euh, appartement privé privé ba mu jura bobu mom la jaja organisé waatoon ba mu jural ko jëye maanaam génnum ba àddunaam mun nañ ko remarqué ci loolu muy le 12 février 2023 même fait mo ñëwaat ci samedi bi nga xamantene moy le 24 parce que bu ñu sukkandikoo ci li nga xamantene mom la enquête génnee té wa commissariat bu plateau daal di koy def ñëwal ci li nga xamantene modi ka di aduna ka ak di Amar ñuy wone ni rek dafa am aussi ben soirée bu mu organiser won ak ay xaritam feulé ci plateau ci ben appartement privé ñu gis né aussi bañu démé demee euh, enquête lu mu wone moy yaramam amul ben gañu gañu bu bu bu ko xamantene ne mën nañ ci sukkandiko pour wax ni dañ ko agresser wala dara mais par contre ba ñëwee ci lieu ya fekk nañ fa li nga xamante ne moo di xeetu Seyna bar boobu nga xamante ne ci nga xamante ne muy jéey yi xew yépp avant lii di am moom lañ ko nemmeeku en plus de ça aussi ginnaaw ay enquête ak tam ginnaaw ay sant saytu yoo xamante ne euh, def nañ ko ngir xam rek dëgg li waral génn ko àddunaam aussi dañu retrouver que si moom aussi dafa utiliser li nga xamante ne moo di euh, Seyna bar te ginnaaw loolu aussi dañoo nemmeeku à chaque fois rek soirée yi ñoom ñi nga xamante ne ñoo ciy nekk di ànd ak seen ay euh, xarit foofu la ñuy amee jëye yi nga xamante ne ñu mel parce que bi aussi même circonstance la parce que ñu ngi ñuy wane ni sax ci enquête yi nga xamante ne tukkee na ci waa commissariat bu euh, plateau dañu wan ni rek am na ay ñoñam yoo xamante ne ñoom la nekkaloon ci biir soirée boobu mais waxaguñu au nombre de combien de personnes lañ en plus euh, jamono ji euh, yoon daf leen teg loxo ngir mën a saytu bu baax a baax naka lay demee ange ñu gis ni aussi day doy waar trop yenn affaire yu ñu ko gis parce que ku nekk ku ne Ahmed Amar xel day dem ci benn jàmbaar boo xamante ne dafa defar wala boog dafa xàll yoon yoonam ci ba dara dul woon a dara ba doon li mu euh, doon te kenn mosu koo dégg ci dara ginnaaw ni mu dundee ba ni mu génnee àdduna le deux juillet 2019 fële ca Paris ginnaaw ay feebar yoo xamante ne amoon na ko mais aussi ñu retourné dégg ay doomam parce que soo déggee ma ne ay doomam mën nañ ne Dame Amar doomam la ginnaaw loolu aussi affaire yi di dem di dem ñu gisaat ki nga xamante ne moo di di Amar doomam aussi génn àdduna ci même circonstances yi Mhm. effectivement li nga wax loolu la mu mel ni nag euh, ki nga xamante moom moo di euh, Amar moom doomam yi li nga xamante ne moom moo leen di topp maanaam mbirum sinébar bi nga xamante ñu euh, ci lañ leen mhm. moom moo di Baydi bi nga xamante ne la mhm. ñu seetlu ci ki nga xamante ne moom moo di Dame. même bu fekkee ne ki nga xamante ne moom moo ñàkkoon bakkanam foofu ci kër Dame moom moo nekkoon ki nga xamante moom moo di. Iba Thiam Iba Iba Iba Thiam mais ci ñoom tamit ñoom Iba ak yu ñu mel ginnaaw bu yooyu ji amee police defoon na enquête enquête ba mhm. jotoon leen teg loxo mhm. te joon nañ leen lu toll ci dix mois mhm. euh, léegi nag li nga xamante ne moo moom di peine maanaam xaalis bi nga xamante ne ndàmpaay la bu ñu waroon fay li nga xamante ne moo di famille bi famille bi nag mu doon laajte lu toll ci un milliard mais li nga xamante moom di tribunal cinquante millions mujjee euh, teg ci ndàmpaay ki ci mel nag ki nga di policier bi di euh, di di di Lamine Diédhiou moom momi comme que momo moo escorter momo na moo leen moom moo leen li nga di dem bi moom itamit dafa bokkoon ci euh, xaalis bi nga xamante ne moom la mm-hmm. comme ni ko waxoon sànq momo mu mel ni dafa jot ñu sensibiliser nit ñi par rapport ak li nga di euh, jëfandikoo Sénégal mm-hmm. yaa ko doon wax sànq léegi ni ki nga xamante ne di euh, Amar musko mus ko dégg ci li nga mel mm-hmm. lu ko xamee won momo li nga xamante ne di liggéey sutura jàppaloon nañu bëri am nañu bëri ñi nga xamante ne moom moo doon sutural di di jàppale te kenn yëgul donc tey bu ci. voilà donc tey bu ñu demee ba dégg ne ay domam ñu ngi euh, ñu leen di tudd ci lu ñu mm-hmm. mel lu ñuy ñaawul la donc c' est l'occasion aussi pour ñu sensibiliser ñi nga peut-être que may na leen ñu am li mm-hmm. nga alal donc sendom, doom pour ñu jëfandikoo li nga xamante ne moo di xaalis wala pour ñu mën a am yeneen privilège daf leen di yomb trop mm-hmm. mais pas parce que tout simplement sa papa wala sa yaay wala en tout cas say waajur am nañu li nga alal ba tax na yow lu la neex nga war def wala fu la neex nga war dugg parce que suba xamoo lan moo la ci mën fekk comme nga xamante ne ñu ngi koy déplorer par rapport ak li nga génn ma àdduna euh, bayti mm-hmm. ñu ngi koy jàlle li nga xamante ne moom moo di euh, njabootam euh, a baax ndaxte bu la lorule amul leneen lu baax li nga xamante mi ngi noonu mbokku internet yi di leen leen indiloon li nga xamante ne moo tukkee génn ko àdduna ak bay di bi nga xamante ne ni démb jox leen dig daje ci yeneen yi enquête ak lu ci mënti am rek ñu ngi jaale ñi nga xamante ñooy ay waa famille même te duñu yem ci euh, mbir mi daañu dem ba xool bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo di commissariat bu plateau fan la ñuy mujjee ak li nga xamante ne moo di euh, enquête bi bu ko laajee sax ñu indi fi ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci li nga xam ne moo di mbiru dorog maanaam ay psychologue yoo xamante ne dinañ ci mën a waxtaan ak ñoom bu baax a baax ngir rek xool la ñu mën a mbaytandiko wala boog li nga xam ne ñoo di bi naka la ñuy def ba moytu li nga xamante ne moo di euh, Sénégal comme ni nga ko waxee rek bu la gaañu rek dina am loo xamante dina la ko yàkkal sa àdduna te doo ko mën a dabooti ba alaa yow mi yeddini jox leen dig daje ci yeneeni jataay jaajëf